bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. noo ngi tàmbalee sunuy kàddu di kàddu yi cant ak kàddu yi ñaan ak kàddu yeeslu jëmale ko ci sunu kilifa di Mawlana al Cheikh Mouhamadul xafidahu llaahu wa ra'aahu moom mi nga xam ni moo toog darayu Cheikhul Xadim ridwanullahi alayhi wa nafaana bi di ko siyaare bu baax di ko ndokkee ci weeru tedd wii nga xam ni mooy chahru ramadan al di chahru rida war rahma di weeru yërmande di weeru xéewal di weer woo xam léppam njariñ la di weer woo xam ne sanga bu ko Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa wax na ni awaluhu rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu itqun min annaar yonent bi wax na ni weeru koor njël bi nga yërmani yàlla la ñeel jullit yi digg yàlla la ñeel jullit yi wareelu yàlla wareelu yàlla la sawara ñeel jullit yi kon weeru tëdd woowu yi noonu ci ndokkeel ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko seyaare bu baax di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla sunu borom al alil mu yàggal ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam ju tedd ja ko liggéeyal waajuram yu tedd ya ko liggéeyal ak tarixal muridiya ak diini islam mu def ko nam mu ko bëggee yàlla def na ni ko sunu waajur baaxoo di asayida alkarima soxna Maymuna Mbakke ridwanullahi alayha wa nafaana bi barakatiha dafa tànnoon bis bu tedd bii di guddi laylatul qadr nekkoon ci biir shahru ramadan al mubarak di weer wi gën ci weer yi guddi guddi gën ci guddi yi nga xam ne waxti na junniy weer di juróom-ñett fukki at ak ñett nga ne yooyu moo taxam sunu wajur wu tedd ba tàndoon ko di ca liggéeyal wajuram ba di sëriñam ba ak Cheikhul waaye mosoo taa dox benn jéegu te demul balaa ji ndigal ci fi nekkal sëriñ Touba loolu moo waraloon bi mu amee yéene ji ak pasteur bi dafa dem ba ci ak Cheikh Mouhamadul Fadal xamal ko bëgg bëgg ak yéeneem sëriñ Fallu ànd caag moom jox ko ci ndigal mu soog a tàmbali liggéey bi noonu la ko di doxale ba ci ak Cheikh Saalihu Mbàkke mi fi mujj ci njabootu Cheikhul Xadim bala caa mos a dox benn njabootu day dem laaj yi ndigal bu ko joxee ndigal mu sàkkum ñaan ci moom soog a bis bi loolu yi nag moom la ñu wéyal ba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toog jataayu Sëriñ Tuuba waxtu wu weeru koor wi teroo su ma xëyee ci moom laay jëkka dem laaj ndax damay wéyal liggéey bi wala dama am leneen ndigal mu yeesal ndigal li ne ma wéyalal liggéey bi ndax benn liggéey féetuwu ko kaw te bëgg naa ci ni ko ku tedd ka daan doxali di soxna may mën a Mbàkke waaye bég naa it yéen ñi ko wutu na ngeen sofi ba di ko ba nëgën kon nag sëñ bi noo koy sant di ko ñaanal bu baax di ko gërëm di sant jëwriñam ju tedd ja di loxoom di sëriñ ci di Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad te kilifa kër gi barab bii nga xam ne moo tudd kër Laylatul Qadr nu nekk fii bis ni ko tey di fa màggale guddi gi mu ngi bàyyi ko ci ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Xaadimu Rasuul soxna si daan defe màggal gi ci bu njëkk gële ca biir Touba ba bis Cheikh Abdoul Ahad dikk fa ne ko bis bi de liggéey bi sunu borom nangu na ko sëñ Touba nangu na ko ba yaatu na ba na foo xam ne danaa la wutal beneen beneen pàkk nga defar ko dolli ko ci kër gii ñu defar defar leen ko xam muy kër gii nga xam ne bi ñu ko bi ko nattee mat na cent vingt mètres wala cent trente mètres yu carré mu woo Serigne Mbengue Diakhaté nekkoon di chef de village ba ne ko demal nga nattal fa soxna may lu mu soxla mu def fa kër lay la too xadar di fa màgg lay la too xadar lii mooy sababu kër gi bi yàlla defee lu jiitu loolu ñu doon ko defee daaru daaru loxaat ndax léegi ko xam ne soxna May mi ngi ko daaru mu oti bi bi ma bi ma amee ndigal ci ak Cheikh Mouhamadou Fadal hmm. ba bi ko sëñ Cheikh Obal joxe ndigal bu dikk daaru loxaat mu defe defe laylatul xadar ba am benn am fa jàngoro yi ñuy wax ci biir arrondissement Darou Mouhty ak département de Kébémer ak région de Louga bu autorité wax ne bu ñu sañoon bépp ndaje moo xam ne day dajale mbooloo dañ koy suspendre ba jàngoro ji wàññi ko mbaa mu jeex soxna si ñëw ci Cheikh Abdullah xamal mu jox ko ndigal ne ko nag ren jii nañu defe màggal bi fii ci Touba. loolu moo sababa ñu jëlee màggal gi Daaru Marnaan ñëw di ko defee Touba ci kër gi bi ñu demee ba jàngoro ja jeex soxna si dellu ci Abdou Lahad ne ko dama doon laaj ba xam ndax màggal gi lañ ko delloo Daaru Lahad wala am naa leen ndigal mu ne ko soxna may mun a kuy liggéey Sëñ Touba ci barab bu sori di fa jëlee liggéey bi di ko andi ci moom yàlla def nga dox ba di ko liggéeyee ci mpincam ci ron jumaa ji liggéey ba duuti jóge Touba mukk na na laytu xadar wéy ñu da ko defe Touba kon lépp bis bi gannaaw Cheikh Mamadou Fadal mi ngi bàyyi ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké te ku ne xam ne digganteem ak soxna may Maymuna Mbacké ci bokk ga leen yàlla boole ci xaritoo gañu xaritoo woon doyloo gañu doylewante woon ak bëggante gañu bëggante woon kon nag noo ngi yeesal suñuy cant ak suñuy gërëm ci sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy sunu kilifa di feddali li doxal diggante sunu wajur ak si Abdou Lahad di ko ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ba fépp fu mu bëgg yóbbu liggéeyu mu def ko na ko bëggee di sant mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi su ma ci tuddee Cheikh Bachir Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddug Cheikh Mouhamadul Muntaxa yor kàddug yoon bi jiital sama cant ci moom dana ma ko dana ma ko mën a jotali mbooleem ay magam ak yarakam te bis ni ki tey njabootu Cheikh Abdoul Khadir ñoo fi jiitu ñëw ànd ak noonu ci liggéey bi di sëriñ Cheikh mi di taawam Cheikh Moustapha mi topp ci moom sii Sidi Mokhtar mi topp ci moom ba ci Mouhamadul Fadal mi topp ci moom ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Khadre di sant mboolem njabootu Sëñ Tuubaa yépp itam ni ko Cheikh Abdou waxe dama baaxoo di leen wax ne barab bi seen barabam kër gi seen këram ndax ñoom ñëpp mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi dañoo jàppoon soxna May def ko wajur def ko sëriñ di ko liggéeyal ànd moom ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi kon nag bu nu demee ba soxna may gisatuñ ko sunu warteef mooy delloo leen jukkal jéem leen a fay donte sax duñu ko man ndax ji ko ji nañu ko sunu wajur waaye bi soxna si làqoo itam parce bi ñu amoon ci liggéey soxna may dafa mel ni tey jii la ñu gën a ñoom njabootu sëñ Tuubaa yëpp tey ñooy ñi ci ëpp ñooy sunuy mag di sunuy kilifa waaye dañoo ànd ci bis bi waaye nag ni ma ko baaxoo waxee damaa nekk ci kër gi nekkal leen fi waaye maag ñoom ñoo yem képp ci kër gi noo yem ci bis bi ñoom ñëpp ànd na nañoo man ak sama njaboot ci lépp luy doxal bis bi maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax. di santi it sama waajuru bopp di sëñ Mouhamadou Bachir Anta Niang moom daarul borom daarul moxti waajur la woo xam ne waajur wu ñooy sant yàlla la waajur wu ñuy puukari woo di waajur wu ñuy damoo ndax gannaaw bu ko borom daarul juree tey mu toog ci waaye bokk na ci ñi xam ne kon ne xam ne ni Cheikh Mouhamadul Bachir aalim la borom xam-xam bu mag la ku ne xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir xaafit la borom la ku xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir abid la jaamukatu yàlla la bu yàlla defee nga am kilifa mu mat kilifa ci fànn yépp danga koy sante yàlla gërëme ko yàlla te yeesal sa lépp ci moom kon maa ngi fàttali mboolem li ma seq Seex Mouhamadou Bachir di ko ñaanal sunu maam yàggal ko fi may ci bu baax a baax mu yàgg lu jiite ni ko sama rakk ju baax di waxee ni sëñ Mahmoudan sëñ Bachirou Anta day ko yàgg soxna May ndax ñoo bokk nekk ca Daaru Muxti ci jamono yu njëkk ya yàlla boole leen ci bokk waaye ñu wëlërante woon jàppante doy na ca firnde sëñ Bassirou Anta Niang doom ji mu njëkk gis ci àdduna soxna may la ko tuddi moo mat ci mboolem njabootam gépp mu mat a jàng alxuraanul karim mu yëkkati ko jébbal ko soxna may soxna may jàngal ko alxuraan jàngal ko leneen la mu ko war a jàngal yar ko yarub diine yar ko yaru taalibi ba mati dem kër mu jox ko sëñ Jili Mbàkke doomi ak Cheikh Mamadou Fatal témoignage yi mu def ci soxna si te sunu rakk ju baax yii di sëñ Mahmoudan jottali ko te kone xam ne sëñ Bachirou du waxantu boroom xam-xam la ku ragal yàlla la jàmmkatub yàlla la kon nag sëñ Mahmoudan noo ngi lay ñaan nga jottali sunuy cant ak sunuy ngërëm ci sunu wajuru tedd woow yi noo koy sant di ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko wér di sant bu baax it Cheikh Bachirou moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo amee kàddoom te nga wax ci turam bi mu xëyee bokk na ci ñi fi njëkk ñëw fii ci kër gi def fi témoignage bu rafet diggante waajuram sëñ Abdoul Khoudous ak soxna a Mbacké ndax wax na ba nettali rakam ji topp ci moom nga xam ne tey bu doon dund dana làq juróom-ñaar fukki at te sëñ Abdou Khoudous soxna may la ko tuddi woon hmm. te sunu wajur yi nag daaru muti yëpp noonu yi la ñuy def kon nag nuyu na sëñ Bassirou Abdou Khoudous bu baax te santal na ko di nuyoo tey bu baax suñu kilifa bopp di ji Maam Thierno Mbacké mi toog jataay sëñ Cheikh Awa Balla di mag joo xam ne taxawu njabootu sëñ Cheikh Awa Balla ak taxawu kër Cheikh Awa Balla ak taxawu njabootu borom daaru muuti moom rekk mooy yitteem yàlla defit muy koo xam ne ku fonkoon soxna may mën a la ku ko joxoon cir la doy na ci firnde moo njëkk a jënd ak oto def jox ko àddiyee soxna may mën a mbàkk moom alaaji maam Cerno te noonee lay wéy di liggéeyal soxna may mën a diirut li fi bokk nekk moom bi soxna si jiitooy mu taxawu kër gi di soxna Bali di man mi ba ci sunu jarbaati bopp yi di Cheikh Abdou Lahad ak soxna su mbaax bi mboolem njabootam di sàmbali si ci di baaxee bi di taawam ak njaboot yëpp fi lañ nekkoon ànd ak Cheikh Abdou Lahad mi yor liggéeyu kër gi ak Baye Cheikh ak mboolem jaww bi kon maam Thierno noo koy sant di ko gërëm bu baax di ñaanal bu baax a baax baax di sant sañu Atex Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñam sa si moom di loxoom moom it ñett fan yii yëpp bàyyi na ay itam jóge daal maanaam ñëw nekk noonu ci kër gi ak ci liggéey bi suñu Atex noo koy sant bu baax di sant mboolem jëmmu borom moom Muxti yëpp di sant mboolem taalib yi. njabootu sëñ Touba nag nun mënuñu leen fay ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi tey koo xam ne Cheikhul Khadim moo jur sa wajuru góor wala mu jur sa wajuru bàyyi nga si yi ñëw teew fi ànd ak noonu ci biir liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi fi donc leen sant leen bu baax a baax a baax njabootu Cheikh Mamadou Mourtada kenn desul di sëñ Mokhtar di sëñ Moussa di Mamadou di sëñ Youssoufa ba ci maam Xarim Mbàkke mi nga xam ne cërub soxna may la te nekku fi dafa dem umra waaye yebal na ab taawu mu ñëw andi fi di sant sëñ am sutbi ni ko Abdoulaye Mbaye waxee di doomi sëñ soxay boobu mi nga xam ni man moo ma yar bàyyi moo ma yar ndax fa laa li ëpp ci njaboot Xaadimu Rasuul fa lañ nekkoon mu jël nu jiital nu teg nu fu mu tegul yi boppam moom Cheikh soxay boobu sëñ Hamzatu taxawaay bu war a taxaw ci bis bi def na ko ba bii njabootam ñoo fi nekk fanaane jàng ay xasaayit ba fa jot noo koy sant di gërëm bu baax di sant sunu mbokk yi nga xam ne dañoo bokk diine ji te am ay alaaxaat yu yàgg sunu diggante ak ñoom ak seeni waajur ak seen i di njabootu Mawlana ak Cheikh Abdoulahi Niass rawatina njabootu Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima ndax bi mooy am wëllëre ak sama waajur sëñ Cheikh Awa Balla yàgg na lool ndax 1951 boobaak léegi juróom-ñaar fukki at la ak ñett la ñu ànd dem siyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi seen aj bu njëkk sëñ Cheikh Awa Balla ànd ak alhaji Baara moom Cheikh Mamadou Fadal alhaji Ibrahima Niass ànd ak doomam alhaji Abdoulahi Niass ñu fasante wëllëre ànd aj ba aj ga ba am na ci ay abiyaat ay bayit yoo xam ne sax alxaji abdul alhaji ibrahima Niass moo ko def ci suñu Cheikh ci témoignage bu mu def ci xam-xamam ci diineem ak na mu def àddina sama doom seen doom bi toog bi Cheikh Sidi Moukhtar moo kon na abiyaat yi dana ko di wax wax waxtaan waxtu wu ne waleere woowu moo dox seen diggante diiru ñi fi bokk nekk kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di feddalil alaxat yooyu xam ne amoon na sunu sunu diggante ak seeni maam ak seeni wajur rawatina na jàpp gi ngeen jàpp Cheikh Abdou Lahad mii nga xam ne mooy sama taaw ndax mooy di sama doom di sama jarbaat di sama loxo ndajo ma jël liggéey lépp teg ko ci loxoom te moo di ko def na gën a rafet te xam naa seen diggante ak moom maa ngi leen ci sant leen ci gërëm bu baax di ñaan son borom mu fay leen ngeen jëppay di santi mboolem seex yiitam itam mboolem seex yi sëñ Tuubaa yi ñoom ñëpp maa seex ñu nga xam ne bis bi bésub sëñ Tuubaa la bésub sëñ Tuubaa na ni ci njabootu sëñ Tuubaa amee wàll ni la ci taalibi sëñ Tuubaa yi amee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lan te wax def nga ko ma di seen jàqee nag alxaji sëñ Moustapha Sarr moom sëñ Basiru Sarr bi xam ne tanaal yu gën a andi na bu baax a baax a baax di sant suñu waleer yi bopp yépp itam danaa ci dellu si léegi di nag am kàddu yu may sànni jëmbale ci bokki taalibe yi nga xam ne baaxoon nañu bu bis bu mel nii nuy fàttalente ak ñoom nii nu ko sunu borom tabaraka wa taala sant wa zakir fa inna zikra tanfaul mu'minin sunu borom dafa bëgg nuy fàttalente ndax fàttalente day jur njëriñ li ñuy fàttali suñu bopp nag li ñuy fàttali taalib yi di jëte mooy nu bokk xam ni ay jaami yàlla lanu sunu borom moo na bind waaye danoo bind ngir nu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna ins illaa li yaabuduun sunu borom danoo bind ngir nu jaamu ko kon loolu dañ caa war xamee ne jaamu yàlla du mënta ñàkk la cib jullit te sama waajur di sëñ Cheikh Abdallah da daan wax ne nit ku ne ñaari kër nga di kërug àdduna ak kërug àllaaxira mu ni kërug àdduna la fi tax am teraanga ba ma fee jaamu yàlla mooy nangoo liggéey te bañ koo yàq kërug àllaaxira la tax a am teraanga mooy jël sa tànk tegu saraatam saxima sax ci jaamu yàlla di def ndigalam te bàyyi tere kon jaamu yàlla moo tax suñu borom andi na fi may dénk sama bopp day dénk bokki taalib yi ak ña ko ña ma ña ko sañ a dénk ñu fas yéene tënku ci jaamu yàlla te di ko dëppale sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa xam ne loolu moom la ñu sunu borom sant moom la ñu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant moom la ñu sunu sëriñ tey gële di Cheikhul Khadim sant ndax sunu borom ni bëggee ko jaamu yàlla dafa am nu nu ko tegtale ndax dafa noo wax wax ju leer ci alquran al karim ni laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana yonente bi la leen defal muy seen royukaay del doon wax ne wa maa aatakum rasul faxudu lu leen yonente bi diggee lu leen diggee na ngeen ko jàpp jëfe ko lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi